waaw bon dañ si euh, euh, contentement là déjà bon may ci féliciter di encourager tamit bu pour baax euh, Marichou quoi parce que tamit artiste le, quoi bon ne ont pas ñu man parce que Marichou j'ai l'habitude de le dire hein.. le succès de Pod et Marichou du Pod du Karen Marichou la quoi moom donc je man mën ma donc cheminer ensemble disons 2015 ba maintenant presque 10 ans nous di en dara nous sommes sama diggante ak Nous ñuy àndandoo saison en saison amul problème donc xewam nous sommes mariage ba ci tey jii nii mu war a ngénte damay ñëw teew su amul lépp lu mu waroon def dama koy bàyyi ñëw teewal ko man nag ñëpp nee nañ xew rek laay dem mais amul benn problème <laughs> nee nañ ma yëpp yaay wër xew yi mais mm-hmm. tey jii nii c'est bien quoi et occasion la <laughs> moo damay xew rek mais occasion la tey pour que ma ñu gisante waat parce que dañoo namante woon je pense que ça fait lu yagne nii gisante wuñu même Billy tamit également donc plaisir le ma retrouver waale waat gars production ñoo taxaw wala lan non non bon exactement production le la xam nga rek ku ci nek da ngay nek sa liguey xam nga donc nit ñi amatuñu jot mais quand même dañuy déggante mais tay occasion la tay ñu wat tay so gisee acteur u Pod et yi ñëppaa ngi fii ñoom Momo xam nga ñom Abou Kébé bu Karma tu vois donc tay grande retrouvaille le won tamit ñu tous ensemble quoi mu nek plaisir bu rafet et que tay xew bi ni dañuy wax ne am doom bu góor moom franchement c'est quelque chose de magnifique donc ñu ko si félicité bu baax également tamit quoi si tourbi, bi si tur bi tamit parce que tey euh, nga am doom nga mu tuddee ko papay Marichou bi nga xam te ne dafa gaañu bu yàggul mu nekk acte bu rafet boo xam te ne Billy def na ko quoi donc vraiment contentement bu mag lañ siy am quoi tay ci production yi dik parce que légui yaa ko wax euh, production yi mel na taxaw lolo tax ngeen xaw a gisenté a gisante concurrence diggante Evenprod euh, ak euh, ki nga xamné li nga xamné mom moy Marodi xeyna hmm. lolo tax production taxaw parce que concurrence bi jamono ji Evenprod tégal na leen lu xaar <laughs> bon en fait ñun ñun ñun concurrence suñu ak kenn quoi tu vois ñun au niveau de Marodi ñun concurrence suñu ak kenn quoi ñun tout ce qu'on fait moy liggéey pour sénégalais yi xam nga pour que sénégalais yi ñom ñuy apprécier nous ce qu'on fait tu vois mais on n'est pas dans la concurrence non non du question production n'y a pas de production yi ngi daw donc euh, c'est juste que actuellement comme li ñuy wax rek amatul production actuellement boo xamante ne maraîchers mi ngi jouent, joué wala genre non, noonu loolu kese la mais amul benn production bu taxaw wala genre yooyu noonu. quoi bàyyi concurrence est-ce que devez signifier que Even Pro, tegul doo seetaan Evenprod wala doo ko bàyyi <laughs> non non du en fait euh, du man tey jii nii sax euh, j'essaie même de suivre toutes les séries mais des fois mënutul nek parce que des fois dañuy bari mais man am yu bari yu muy bind des fois même il y a des séries yo xamante au sein de Marodi ça j'ai du mal à suivre mais j'essaie de suivre quoi donc du coup doo mën seetaan série yépp tu vois mais t'inquiète c'est c'est le cinéma tu vois c'est le cinéma mais à part à part Even pro à part ah, à part Marodi yenn site de production ngay ngay gëna sétane wala yenn série ngay gëna sétane euh, non, man, en fait, je suis hyper concentré à tout ce que je fais sur Marodi, quoi. Donc, de ce fait, man, euh, je suis là, mais si je fais une production, je suis en je de faire quoi. Tu vois, des fois, je suis là, mais c'est sûr que tay actuellement ak bi may def xam nga day compliqué trop pour nga suivre production yépp mhm. tu vois donc euh, tey jii nii bon c'est sûr que production maradu yi rek doy nañ ma quoi ba nga xamante tay pour ma am temps seetaan yeneen yi mais nak par contre je peux je peux regarder ben production suma intéressé. mais le bette est-ce que yang koy sétal ni quoi. bon en fait suivre ma yépp mais tey jii nii c'est une belle série bo xamante ne maa ngi koy seet am na ñu bëri ñuma ci xam. ñu xamante sama ay xarit lañ quoi ouais ouais si ñu bëri ñuma xam fofu non ñoo xamné sama ay xarit lañ tu vois ñom jeena ba taal genre yooyu non ay ñom sumbul ñoom ñom samay xarit lañ donc on se parle quoi. naka nga gisee jeu d'acteur bi ak euh, scénario bi ak yoy non mais c'est le cinéma sénégalais c'est le cinéma sénégalais tay cinéma Sénégal mo toll fen fo xamante ne ah euh, ñëpp dañu war a def lu baax. tu vois euh, y a il y a plusieurs séries. il y a plusieurs maisons de prod. tu vois scène bi production actuellement bu Billy ñi ngi def liggéey bu rafet donc je pense qu'il faut encourager tout ça Il ne faut pas citer les maison de production hmm. toutes les maisons de production actuellement dañu war parce que c'est le cinéma sénégalais qui est en jeu tu vois ne série yëpp quoi <laughs> mais est-ce que concurrence est-ce que hasard Amna, diganté euh, Babel ak série bi nga xam bété bété parce que ñom ñaar ñëpp le même sujet bon en fait euh, euh, bon même si je me je ne sais pas ndax euh, angle yi kii man j'ai pas fait Babel tu vois j'ai pas fait Babel sur au sein de Marodi parce que Marodi dafa yaatu. tu vois mais tey jii nii mënuma la wax ndax am na ressemblance wala am na tu vois parce que nous on est pas dans ça nous on est dans le travail ñu dañuy liggéey rek xam nga tu vois dañuy liggéey rek service sénégalais quoi. mais si thème bi ñuy wax muy problème mu Kassri. Mhm. est-ce que gisoo ni ñoom ñaar dañoo dañoo xaw a exagéré ci jeu bi wala dañoo xaw a exagéré ci scénario yi voilà bon en fait nous on n'est pas dans ci ay problème euh ñun je sais pas si ñun bon nak nak yéen ngi bu baax mais je sais pas nak ñun on est dans ça. tu vois je sais pas nak ñun on est dans ça tay ji bon le scénariste Mo mi ngi ci tu vois ak de Marou de la production ñom ñi ngi tek sen ay thèmes tu vois sénégalais ñi ngi apprécier tu vois après nous ñi nag jugé mhm. mais là vraiment je sais pas peut-être comparaison enfin def comparaison je suis pas dans cette idée là moo j'ai du mal à te suivre mhm. parce que ba comment dans cette comparaison là mais kon Marodi ban problème la am ba mënul gérer acteur acteur yu bëri dañuy gis bu ñu defee ñaari série Marodi dañuy dem yeneen maison de produit bon jaxal na ma li ngay wax parce que ñun on a fait suñu suñu suñu ki yu bëri plus de trois saisons quatre saisons tay ji ni tout cela là amul ci ah, ah, gëw ma ne ne am na si yenn euh, acteurs yo xamantene ne merde mer dem wala genre yu enfin je sais pas peut-être su amee tamit je sais pas mais tey jii on n'est pas dans ce truc là ñun ñep la ñuy jubal quoi. <laughs> Viviane da fay gëna fay comme Marodi wala lan. en fait si moi je te suis pas billahi wallahi taala je te suis pas en fait man xawma sa acteur lu ñu fayeku c'est pas mon travail man je suis dans le dans l'art en fait euh, sur le domaine artistique quoi. Hmm. je suis plus sur le domaine artistique quoi. you know. merci <laughs> jaajëf. waaye comme noonu laa ko dañuy dañuy الله الله الله الله الله الله a Ariel. Non mais c'est bon. bal lañu rek bal lañu rek xaaral Ndoye Ndoye booy junior may leen ko li mu Ndoye defal rek nga ñëw soit defal lu bari nga ñëw yaa ngi ci biir. wala bu amee taalibe bu